بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الحق ورافعه ومضل الباطل وواضعه والصلاة والسلام على إمام المرسلين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندلو سيشي سنو جوتاي السلف مع القرآن تينك جروم ينتيلو جوتاي تكر جينا خمنا مموي لامزو دي كورا لبنك القرآن الكريم تنجيتل الشيخ عبد العزيز كمرا yal na yàlla sàmm ko ak groupe yi nga xamante ne moom la àndal ñu nekkoon ci ay mawaqif taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak alquranul karim ndax ñun nu mën a jànge ci moom waaye roy ci moom dundaat alquranul karim mbokk yi tey dañuy ñëw ci xadis boobu nga xam ne sama sëriñ nettali na ko ci téeréem muy imaam alqurtubi mu nekk xadisu muaad bun jabal benn bés muaad dafa ne xultu man maa wax man muaad saa yu ma nettalee lu mel noonu allahu akbar su ma déggee saxaaba yi fi ñu naan xaddatani qultu arsalani talaba minni man rasulullah su déggee saxaaba mu ne man nee naa yonent bi gis naa yonent bi dégg naa yonent bi toog naa ak yonent bi ànd naa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay xam xéewal bi leen yàlla defaloon mbokk yi yal na nu yàlla may nu ànd ak yonent bi ca aljanna yal na nu yàlla may nu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi dama leen a danu leen a ñee sax laay wax ndax qultu muaad nee man maa wax yaa rasulallah yaa rasulallah yow yonent bi yow ki yàlla yónni araayta araayta qawla allahi taala lan nga ma mën a wax ci waxu buur bi subhaanahu wa taala yawma yunfaxu fi suuri fa tatuuna afwaaja bés ba nga xamante ne suñ ñi deewee ba lépp ne tekk malaayika bi daal di ëf te wal buftu gi ñëpp daal di jóge ca bàmmeel ya ñëpp daal di dekki fa taatuuna afwaaja ñëpp daal di ñëw teew ca kanamu yàlla ay mboolooy mbooloo ñëpp daal di dekki senegal yi teg dekki ñëpp waaw taalibe yeeg sëriñ seeg ministre yeeg président yeeg ñëpp daal di dekki taxaw ci kanamu yool kanamu yàlla bur bi subhaanahu wa taala yàlla fas yéenee atti ñëpp Muaad nee na yonent Muhammad aaya bi lan nga ñu ciy wax lan lañ ciy déggee خول sahabai نندن دندي القرآن بمعاذ وهيلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا يعني صلى الله عليه وسلم نكو يا معاذ يا معاذ يا معاذ بن جبل يا معاذ لقد سألت عن أمر عظيم معاذ لاج nga mbir mu mag مري لقد سألت عن أمر عظيم muaad laaj nga mbir mu màgg tëri summa arsala aynayhi baakiya man annabiyu yabki bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee muaad lii summa arsala aynayhi baakiya nga gis yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam muy jooy laa ilaha illa allah summa qaal après yonent yàlla muhammad daa di ne mu fas yéene nettali muaad la yàlla nam ci biile laaya ak la cay xew mu ne ko yuxcharu ashratu asnaafin min ummati ashtata bu yomal qiyaame ba nit ñi dekki yàlla dafay rappel day ber fukki façon nit ci sama ci sama xeet sama xeet day am fukk yoo xam ne yàlla daf leen di ber qad mayyazahum allahu taala min jamaati almuslimin yàlla daf leen setti te ràññee leen jële leen ci mbooloob julit ñi laa ilaha illa allah da leen di génne ci sàppe yi di leen ber ñoom fukk façon yooyu ñan la te yemu ca wa baddala suwarahum yàlla daa di soppi la nga xam ne mooy seeni melokaan allahu akbar yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee ne fa minhum ala surati alqirada amna ci ñoo xamanteni ne melokaanu golo lañu yor yàlla daf leen soppi daf leen golo wa ba'dhum ala surati al-khanazir am ci ñoo xamne yàlla daf leen soppi daf leen melokaanu mbam xuux la ilaha illa allah wal iyaadu billah rahmaka ya rahman wa ba'dhum munakkasun arjuluhum a'lahum wa wujuhum yushabun alayha am ci ñoo xamne dañu leen a dëpp leen dañ leen a sen tanki ñoy fete kanam tàngaayu yowmal qiyaam seen xar kanam yi moom mooy tege ci suuf yusxabuuna alayha ci seen kanam ya lañ leen di diree wa baaduhum umyun yataraddaduun am ci ñoo xam ne bu yowmal qiyaam dañuy silmaxa di dem ak dikk xamuñu fan la ñuy taxawee wa baaduhum summun bukmun la yaqiloon am ci ñoo xam ne dañoo të dañoo lu ñu xam lenn ci li وبعضهم يمضغون ألسنتهم فهي مدلات على صدورهم يسيل القيح من أفواحهم لعابا لا إله إلا الله ينتي على محمد نيني أمتي نيو خمانتيني أمتي نيو خمانتيني دانو يي سين لامني لامني تاوي بموي دال دنيا لمن باغي جيني دتبو بو خساو خساو لا اله الا الله يلنتي يالا مسلم mu ne yataqaddaruhum ahlul jam ñooñu nit ñi dañ leen di seexlu ku ñu jege nga daw bàyyi leen fa wa baaduhum muqattaatun aydiyahum wa arjulahum yonti yàlla muhammad alayhi salaat wasalaam nee ne am ci ñoo xam ne bu ñu dekkee yowmal qiyaam dañuy daggate seen tànk yi ak seen loxo yi dañuy dagg seen tànk yi dagg seen loxo yi laa ilaha illa wa baaduhum musallabuuna ala juduin min annaar am ci ñoo xamante ne dañ leen di pendre wékk leen ci ay ëkk yoo xam ne ëkku safara la maanaam ay bantu sawar yuy tàkk ci comme nga mel ni pot lamp nga wékk fa nit pot lamp bi di tàkk laa ilaha illa allah wa baaduhum ashaddu natnan min aljiyaaf am ci ñoo xam ne dañu bokk ci fukk yooyee yonti yàlla Muhammad nee na ñoo gën a xasaw seen xet moo gën a xasaw aw médd goo xam ne dafa def ay fani fan loo ko natt ci xasawaay seen xet weesu na fa wa baaduhum mulbasuuna jalabiba sabiqatin min alqatran laasiqatin bi juludihim am ci ñoo xamante ne bu yowmal qiyaama dañ leen di solal ay manto ay jàllaabe yoo xamante ne dañ ciy def matière boobee nga xam ne day tàkk te du fay léeg-léeg mag ñi dañ ko daan am pour boyale ba léegi day am loo xam ne soo ko defee rek day tàkk te du fay day gaaw a boy nee ne loolee la ñuy def ci jàllaabe yi muy tàkk te ba pare jàllaabe yi day kole ci seen der yi day kole ci seen yaram yi comme na ko yàlla waxee ca suratu ibrahim sarabiluhum min alqatiran fukk yii la yontu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu yowmal qiyaamee yàlla def leen di ber tege leen nale soppi seen melokaan laa ilaha illallah mbokk yi fukk yi lan la ñu def ar rasul yaqus wa huwa yabki yonti yàlla Muhammad mu ngi nettali mu ngi jooy saxaaba yi de tekk lan la fukk yi def yonti yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam fas yéene wax saxaaba yi ñooñee fukk ku ci nekk lan la def batax tax yàlla daal soppi seen melokaan ba tax yàlla daal leen ber incha allahu taala jotaay bii di ñëw ku ci ànd ak ñun bu soobee rabbi jalla wa ala daañu la wax fukk yooye ñan lanu ak ku ci nekk lan la doon def balaa muy weesu mbokk yi ñun ñu mën a tuub tuubu ilallah na ñëpp tuub dellu ci yàlla wax leen astaghfirullah wa atubu ilay استغفر الله واتوب اليه كون جوتاي بي ان شاء الله تعالى ني يغلي حديث بي يونتي محمد عليه الصلاه والسلام واخ فك يوي لان لان ديف ما كان من ثواب فمن الرحمن وما كان من خطا فمن نقصان سلل الاله على النبي واله ما لبى ملب او تهلل محرم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته